manam liko lile li leen du alal du conviction la ay nit ñu Nous xalatine bok gëm-gëm and pour bok fu ñu jëm lolu nous ñu donc qu'est-ce qu'ils font ñu jël permis à écoutez bien l'assurance assurance parce que damay bañ ñu jaxasse seeni xel mom buñ koy assurance auto bi mi ok assurance oto bi mi ngi nii carte grise oto bi mi ngi nii permis bi ñu jël attestation bi mi ngi nii prolongation attestation bi moo nekk nii xam nga lii leer na nañ ñu jël permis mu dem ñaari yoon ñetti yoon pour jëli permis am ñu koy gololoo mu dem ba même attestation bi ay pexé deug lañ def pour jotat ci attestation bi parce que même biñu jëlé permis ba paré ñom dañoo def ay pexé ba nanguwaat attestation bi biñu démé di dox ci lolu ñu wax ak seen kilifa bu mak mu woté service des mines ñu niko dindi nañ permis amendoy ci système bi est-ce que dégg ngeen baax li bëgg wax c'est pourquoi on a décidé de porter plainte contre la police du Sénégal pour que permis bii nga xam ni bind nañ ci numéro bii ñu attesté ko ñu génne ko dans les mair dele c'est très important et ñu xam ni amul benn manœuvre bu mën a tee 2DL bu dul yàlla fekk yàllaa ngi ñuy may dund ñuy nooy ci kaw suuf senegal dara mënuñoo tee liñ bëgg a dox ñu dox ko ñu ngi ñuy suivre ñu ngi ñuy topp ñu ngi jéem a gàllankoor nit ñi mais bi moy suñu premier combat il faut te xam nga ni ñi défé la c'est-à-dire jël permis jambour jël attestation jambour dem jël say waxkat na leen ki dafa dawal sans permis daw yooyu yëpp yaa ngi préparer opinion bi pour xëy suba japp ko mais lolu c'est malhonnête moo tax maa ngi wax ni combat bi ñu nek ci Sénégal na doon combat bu loyal parce que xamul tax combat dafa wara loyal parce que xeex bu demee ba nekk xeexu mbedd rek dootul amati règlement te xeex bi bu amul règlement man bu ma ci duggee man bu ma duggee ci xeex bu amul règlement aduna day tukki billahi lazi la ilaha illaa huwa man bis bu ma duggee ci xeex bu amul règlement aduna day tukki donc nañ bàyyi affaire yi comprendre nga voilà léegi loolu la ñuy tàmbalee il faut sénégalais yi xam ni Ameth Ndoye dawalul sans permis Ameth Ndoye dañ ko doon topp parce que mi ngi doon ñëw ci suñu ay réunion ñi ngi doon préparer lii nga xam ne nii moom lañ leen indil tey lii jaaxal leen dofloo leen upp seen bopp ñuy def ay manœuvre pour fexe ba téye ci kenn wala téye ci ay nit wala pour yàq lii ñu jël permis mais naka ngay jële sa permis attesté la nga dem ñaari yoon ñetti yoon police pour jël yóbbu sa attestation pour jël sa permis ñun la sa gisuñu sa permis yow attestation bi nga yor ñu def ay manœuvre ba jot ci xam naa ñoom jaaxle nañ sax nan lañ def ñun ba récupérer waat attestation parce que tey bu ñu récupérer woon attestation bi lan ngay wax nit ñi jël nañ sa permis jël nañ sa attestation mais pour te dire que kon yàlla rek ay pexe yàlla rek moo wóor te moo jub donc Ahmed Ndoye numéro permis ma ngi nii ci attestation bi oto bi dafa am assurance am carte grise deful benn infraction luñ ko attesté nee nañ takkul woon ceinture am

lii rek da leen di wan lan mooy pertinance su combat bi nga xam ni moom lañ song parce que réew mu mel ni Sénégal nga xam ne am na ñetti alternance démocratique bu ñu demee bay topp citoyen di ko faagaagal parce que gis nañ ni mi ngi dox ci loo xam ne nii constitution bi moo ko maye mu ànd kook yeneeni sénégalais pour doxal réew mi mais bu ñu demee ba foofu xam nga mais y a un problème nag problème am na loolu moo tax nag ñu taxawal. plateforme bi ñu tuddé 2DL devoir démocratie liberté devoir démocratie liberté gis gis gis bu bess la jëfin bu la façon taxaw bu là. devoir démocratie liberté réaction la boo xam ay sénégalais yu gëm ni sénégalais dafa mériter démocratie yu gëm ni sénégalais dafa mériter liberté yu gëm ni sénégalais dafa mériter développement yu gëm ni sénégal dafa mériter prospérité ñoko taxawal donc pour gëna a ci lolu Ahmed dina ci ak mais pour introduire lolu wan leen fan la démarche bi jóge ak lan moo tax ñu taxawal ko ak lan moo tax ñu xalaate ko nii damay bàyyi Cheikh Thiam mu expliquer leen loolu ci cinq minutes après ñu dellusiwaat fii continuer waxtaan bi Cheikh demal ci président demal ci président. parce que bu day métti. déplacer micro yi pour la presse. non non non man man monsieur le chef je non de non yóbbu leen yóbbu leen ko fële ci président bi mu def ko noonu. ah. non mais Ameth Ndoye parce que gars yëpp fële la ñuy waxee déplacé leen micro yëpp fële waaw. Ah, waaw ci biir bi waaw ci biir wins